Idrissa Seck, l'homme d'État, aujourd'hui président du Conseil économique, social et environnemental, fraîchement nommé par le président Macky Sall depuis le 1er novembre 2020. lu ndaamal Kajoor ana kan mooy Idrissa Seck nekk ku ñu ràññee lool ci xujja politique sénégalaise bi waaye itam mu nekk ku am jaar-jaar bu baax Idrissa Seck mu ngi gane àdduna en 1959 ca Thiès teint noir taille courte di faral di watu saa habillement moom lu ci ëpp costume cravate lay def wala sax mu sol ay yére olof ça dépend ci contexte yi mu nekk ku neex deret lool saa yu ko gisee bëñam ngay njëkk a gis ndax nu mu mel ci njàngam moom mu ngi tàmbalee njàng alquran balaa mu dugg école ndax mu ngi commencé école am primaire fële ca Rangoulène Sud 2 fële ca Thiès mu nekkoon ku xarañoon lool ci école wa fala defee CI ba CM2 ci la fa daal di jógee dem ci collège bi ñuy woowee Saint-Gabriel de Thiès fa la amee BFEMam mu ñëw Ndakaaru de la seconde à la terminale fële ca lycée Lamine Gueye la amee baggam 1981 gannaaw bi mu ko échoué en 1980 si la amee bourse fële ca Paris ci école haute étude commerciale bu Paris ba en 86 retour au bercail fii ci Sénégal Idrissa Seck daal di ñibbisi commencé liggéey ci benn cabinet dénommé Prince Waterhouse di benn cabinet de consultants américain ñoom ñoo ko jël mu commencé liggéey foofu. mu nekkoon itam directeur de campagne maître Wade en 1988 aw élection yooyu mu xam ne moom toog jigu ko mu dellu bitim réew yokku xam-xamam en 1995 mu dellu fii ci réew mi mu doon polémique bu bari ndaxte Idrissa Seck ci lañ ko gën a ràññee ci lañ ko gën a bàyyee xel itam daal di dellu ci parti au nekkoon nguur ñu daal di ko tabb comme ministre du commerce de l'artisanat et de l'industrialisation en 1996 en 1999 mu nekkaat itam directeur campagne maître Wade ci présidentielle 2000 taw bi ñu tànnee maître Wade ci njiitum réew mi moom Idrissa Seck nekk ministre d'État directeur de cabinet maître Wade 3 novembre 2002 mu jóge foofu nekk le premier Madior Boye ginnaaw suuxum bato la Joola mu nekkoon coow lu rëy mu amal fa liggéey gu am solo foofu digganteem ak Wade nekk lu neex lool waaye itam ñu gis ne itam liggéey bu am solo bi mu amal primature moo tax ñu sélectionné ko ci cadre initiative d'allègement de la dette ci primature bi complice Wade bu baax ba ñuy wax Wade kat kii di Idrissa Seck doomam la Mohamed Saleh nekkoon conseiller ci cabinet président Wade ñu dégg ne daanaka premier ministre bi day jéem a tàqali diggante Mohamed Saleh ak président Wade parce que am ay wax yu sew diggante Wade ak di yaakaar nii da koy jéem a écarté ngir mën a préparé wu ci élection yi ñu jëmoon di 2007 daal di amal waxtaan gu am solo ak ak taskatu xibaar yi di leen di wax balaa ngeen di génne information na fekk mu leer leen. Je vous ai dit avant d'accuser les gens il faut tenir le dossier et les preuves on ne peut pas en faire un objet de campagne vous savez la femme de Bill Clinton a écrit un livre sur leur vie avec son mari et elle a dénoncé l'enquête comme arme de destruction politique l'enquête puisque l'enquête est une prérogative de l'exécutif et dès qu'on vous met en enquête que vous ayez fait ou les gens se posent des questions c'est pour ça qu'on a créé la présomption d'innocence personne n'a le droit de vous dire coupable, voleur, machin, alors que le juge ne s'est pas assis devant son tribunal avec ses assesseurs et que tes avocats plaident et que le public assiste et qu'ils disent sur la base de 1, 2, 3, 4, 5, nous vous déclarons coupable. Avant ça, personne n'a le droit de vous accuser. Personne n'a le droit de le rendre public. 21 avril 2004 lañ ko daal di remplacer jëlee ko fële ca postam premier ministre indi fa Macky Sall atum 2005 en juillet Wade di reprocher Idrissa Seck al gestion des chantiers de Thiès ginnaaw bi ñu ko dénkoon lu toll ci 21 milliards ci suñu koppar Macky Sall nekk premier ministre moo génnee rapport boobule daal di koy jébbal taskatu xibaar yi. aussi wundu dépassement du budget d'un chantier de Thiès l'attribution d'un chantier sans avoir le droit taw li kur taskatu xibaar yi ak ñi di pro gouvernemental di wax détournement de fonds escroquerie faux usage de faux. je parle même pas de leur premier ministre à travers qui le président envoie les instructions je parle du président de la république allez lui dire que lui-même n'a aucun pouvoir sur mon destin lan yusibanaa illa ma kataba allahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalil mu'minun ne m'arrive que ce qu'Allah aura prescrit et allez lui dire que ce manque de puissance là vient du fait que lui-même n'est qu'un ancien spermatozoïde et un futur cadavre dans cet intervalle il n'y a que l'usufruit de puissance pour un temps il n'y a pas de puissance wala hawla wala quwwata illa billah la puissance n'existe et ne réside qu'en Allah nulle part ailleurs allez lui dire si loola lañ ko daal di convoqué police centrale ñu daal di ko denc ca Rebeuss. début de l' année 2006 une libération secrète Idrissa Seck daal di bénéficier wu libération secrète ginnaaw bi mu defee 199 jours en prison si at boobule en 2006 Idrissa Seck daal di annoncé candidature am aux élections présidentielles 2007 le 4 avril. ginnaaw audience bu yàgg gi ñu amaloon Serigne Abdoul Aziz Sy Junior radiyallahu radiallahu taala anhu président Wade annonce le retour de Idrissa Seck au waaye Seck tontu wu ci te retiré wul itam candidature am si élection février 2007 si élection yooyu mu génn deuxième avec 14 virgule 86 pour cent de voix derrière Maître Wade avec 55 virgule 90 pour cent de voix élection yooyu en 2009 Idrissa Seck daal di rejoindre itam PDS ginnaaw gi mu juboo ak Maître Wade waaye diggante boobu daanaka dara desatu fa waaye itam dafa nekk lu yàggul dara ndax en 2011 dafa dal di génn créer parti am bii di réew mi parewaat itam jàkkaarloo ak Abdoulaye Wade si élection 2012 naw bu mu nekkee membre M23 di xeex lii di troisième mandat Abdoulaye Wade ay si campagne googu ñu ëpp ci ñoom dañoo yemale seen campagne fii ci Ndakaaru waaye kenn ci ñoom képp moom moo def tour du Sénégal mooy Macky nekkoon itam membre M23 élection yooyu Idrissa Seck génn avec 7 pour cent mu ëlbatiku jàppale kii di Macky Sall au deuxième tour comme membre M23 Macky Sall mujjee jël ndam li kanamu Abdoulaye Wade avec 65 virgule 8 pour cent de voix si la bokkee ci parti mouvement présidentiel bi di coalition Benno Bokk Yaakaar mu daal di nekk lu yàggul itam ndax en 2013 un an après les élections présidentielles réew mi daal di génn Benno Bokk Yaakaar ay désaccords yu mu amal ak président Macky Sall Pape Oumar Gueye ñoom itam ci réew mi leen nekkoon waaye mujjul leen topp dañoo mujj des. président Seck daal di déposé waat candidature am pour une troisième fois waaye bii yoon dafa créer coalition Idy 2019 mu ànd ci ak ay kàngam yu am solo yu seen xel màcc lool Cheikh Adjibou Abdoul mbay Pape Diop xalifa saal ak yeneeni kàngam. jàkkaarloo ak le président Macky Sall Ousmane Sonko Madické Niang Issa Sall. donc yooyu daanaka moom la ñu waxoon moom moo nekkoon à la tête de l'opposition mu mujjee avec vingt virgule cinquante et un voix Macky avec cinquante huit virgule vingt six pour cent mu nekkoon résultat daanaka bi mu nanguwul dara. ndax moom ak opposition bi daal doon nañ jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ñu daal di ne ñoom ànduñu ci benn yoon ci résultat gi ñu génnee waaye njiitum réew mi moom moom nanguwul benn yoon déposé recours am ci conseil constitutionnel bi élection yooyu noonu nekkoon troisième échec waaye itam nekk lu meilleur record ndaxte moo nekk record bu gën a mag ci élection yu mu def yëpp ndax moom moo jiitu fee ca Thiès ak ca Mbacké le 1er novembre 2020 Idrissa Seck est nommé président économique sociale et environnementale par le président Macky Sall ngir mu uutu Aminata Touré mu nekkoon ci boppam. tey jii mu nekk quatrième personnalité de l'État mu nekk lu bëri coow lool waaye itam mu nekk luy gën a rataxal seen diggante digganteem ak président Macky Sall ñu mën a jàpp ni l'homme d'État gi ñu koy wax Idrissa Seck Ndamal Kajoor ah ki ko xam la ndaxte yi mu occupé ak formation am ak fi mu jaar mën na ko may tey ñu ne ko l'homme d'État